moo noonu ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di leen kontaane bu baax baax moo mbokk internet Lutte Motivation tey nag ñoo ngi fi nga xamante ne mooy Pikine seet kenn koo xamante ne doomu nday ki nga xamante ne mooy Sokh ñu fas yéene waxtaan ak moom ci lu bëree bari dañ koy bàyyi mu nuyoo bu ko defee ñu wëli waxtaan bi grand bay ñoo ngi lay ziar maa leen di ziar waa lit Motivation maa leen di ziar di ziar ñëpp ñu ñuy suivre ñi nga xamante ni ñoo nekk fépp ci àdduna bi ndax seen bi yaakaar naa ne wër na àdduna maa ngi leen di nuyu di nuyu mbokk waa filen ñi nga xam te ni don lañ juddoo fi lañ yaroo fi lañ màggee ndaxte lépp luñ doon tey ñoom ñii la waa Pikine maa ngi leen di nuyu di leen siyaar di siyaar ñëpp nag mhm. nuyoo bi am na solo mais ginnaaw euh, bu ngeen bëree ba pare seen diggante ki nga xamante ne mooy Marley mhm. laataa ñuy dugg ci li nga xamante ne mooy waxtaan bi dañuy ñëw sa diggante Sokh mhm. sa relation Sokh lan la waaw relation avant làmb la nag parce que maa ngi moom ñoo bokkoon benn école football bokkoon soox waaw ñoo bokkoon école football Bekaay ñi ma ñi xam ñi dëkk Pikine xam nañ ko mi ngi nekkoon fii Sips mhm. depuis euh, Pipi Benjamin ba Minim mhm. moom nag mu daan topp magam bi ñuy wax euh, Jatli Jatli waaw ndax moom mhm. moo tax ñi ko xamul ñi koy yeex xam euh, sooq lu mu dugg mag ji moo ko si dugal waaw ndax bu dee football tey sooq dem na ba nekk Lusitana école de football xam nga ku dem ba nekk centre école de football kooku football avancé nga ci Euh, mag ji ne nekkoon ci bàyyi ko moom it mu toppaat mag ji mag ji duggaat ci làmb mu ñëw duggaat ci làmb donc loolu ñi ngi ñi may wax mooy ñi ko xamul mooy ñi ko xam tey mm-hmm. waaw donc li indi suñu relation nag foofu lañ xamante mu doon lu rafet yàlla def na nag dem nañu benn moment man it bàyyi naa football donc maa ngi concentré wu sama liggéey donc toog nañ benn quelque temps boo xam ne déggante wuñ gisanteetuñ xam nga mm-hmm. amatuñ benn euh, relation quoi mm-hmm. mais mais maa ngi doon suivre mag ji mi ngi bëre ci làmb Jatli euh, bañ demee benn moment benn jour la ñuy dem fi écotable laa dajeeg moom ne ko yow dama laa gëj foo jógee affaire yooyu mu ne ma damay dem entraînement. ma ne ko loolu def yow xanaa da ngay bëri léegi yow ma waaw damay bëri am naa combat su ma juum mu ne ma Aziz Ndiaye tëggal na ma damay bëri. lu mu dugg rek dugg. lu mu dugg mag jee ku dugal. moom dafa nekkoon ko xam ne dafa sës ak mag ji. Mhm. ni paa bi mel soq bu ndaw. dëgg la noonu la meloon ak mag ji. dafa topp ci ginnaaw mag ji. tey ba tey lii mu euh, dégg tey lii mu dégg rakk ji tamit incha allah dina topp ci moom ba raw sax dégg li mag yi dem yëpp incha allah rabbi kon bu suivroon li nga xamante ne mooy football dinañ ko dégg fu football la a mën nga nekk école football yomb na ku nekk mën nga inscrit bokk fa mais boo demee ba centre récupéré la ci école football a la ko dégg Sénégal génn ay professionnels yu bari donc ku dem ba nekk foofu mooy am nga benn talent bi donc mais xam nga nag ku si nekk ak yàlla fi muy jaarale say affaire mm-hmm. xëy na nag fii la yàlla waxoon ni moom bon fii lay mujjee doon champion au passage ma lay nuyu di la siyaar di la wax ni encore une fois on est là avec vous jusqu'à l'inscription du soleil voilà. ban zaaru nit la. waaw ku oyof la nak. en fait euh, du nit maanaam c'est-à-dire koy wax du du nit yo xam comme mbër yi comme ni ñu koy gisee léegi. di moytu. di xam nga di am fu ñuy dugg ak fu ñuy di bañ yenn yi ak yoy moom yooyu fekk ci. soo ko daal ba am nit la bo xam ne ni bu am respect nak ci nit. Baay Faal la. waaw no Baye Fall Baye Fall parce que boo nee Baye Fall ça dire tout am na respect si am na yar am na teggin te sa cër da la koy jox ndax man moom yaakaar naa ginnaaw laay fi laa juddoo fi laa yaroo fi laa màggee ñëpp xam nañ ma man du ma ànd ak fayda te boo ma joxul cër dama lay bàyyi nga dem sa ndax tog nañ pendant de combien d'années gisante wuñu ñu te ku ci nekk yaa ngi nekk say bagage mais ba yàlla defee suñu diggante ñëwaat ma xam ne man am na ci lu ko mën a apporteel ma defal ko ko gratuite ndax nit nag a dëgg yàlla bu fekkee da ni sa dëkkandoo la benn ñaareel bu mu wëlbatiku nekk sa rax ba pare bëgg la lépp looy def tey boo gisee ni la avancement ak intérêt mu ngi si da koy defal gratuitement pour man. mais moom lan moo la gën a marqué ci moom loo xamante ni boo toogee ba nii nii nii da xalaat à chaque fois day day ñëw si li nga xamante ni mooy sa mémoire. Sokh dafa yërëm yaayam. pour man dafa nap ci ñoom ndax xam nga nga nekk ay xale góor nekk ak say say waajur. xam nga tay sa papa dem bay len fi di ko ñaanal yàlla fi mu tëdd yàlla na ko xam nga wol bu des ak sa yaay ngeen nek ay ponkal wara a faj dara euleuk donc lool rek sas la donc bokoy xol mom buy wax ci yaayam sax day bëgg joy donc lool mom luma marqué ci mom la te pour man euh message la pour tout le monde ndax suñu wayjur amuñu seen fay surtout suñu yaayu jigéen yi parce que ñun ñoy dess ci ñom la ñepp mu nañ la bàyyi mais mom bu la bàyyee dang koy yek lum la téré même bu fekkee ni neexu la ko bàyyi da maam neexu la ding ko ding ko bàyyi parce que yaay la waaw donc loolu da laa xam ne moom man saa yu ko tuddee rek wala moom bu ciy wax sax wala boo xoolee regard bi muy de ak digganteem ak yaayam sax nga xam ne kii ku sori la ci yaayam daal. nee na léeg-léeg bu toogee guddee àll yaayam da koy woo di ko laaj foo nekk ak yooyu noonu. loolu yaay yëpp la ci doom ndax mbaam wéq na doom waaye bañu ko mais dañuy sant yàlla ba ñu amee wayjur yoo xam ne dañuy nemmeeku di ci lan lañ nekk ak fan ngeen nekk. waajur bu waajur yëpp ay inquiétude seen doom mais bu la yàlla dimbalee dénk la waajur boo xam ne foo nekk bokkoo lijjanti xam nga ne am na sori ci moom am nga lu sori moom daal waaw. am na solo dañuy ñëw ci li nga xamante ni mooy seen diggante ki nga xamante ni mooy Marley. Mhm. boobu làmb bëri woon na coow lool. waaw seen préparation làmb lan la woon. waaw euh, di profité du nuyu Marley aussi parce que boo xoolee combat bi commencé nañ ko. Euh, amuñu benn dépassement entre ñun ak ñoom. même ba ci supporter dajee yenn jàkkaarloo yi sax tooñante day am ku ci nekk di di di di di kuyal sa mbër. mais doo gis benn loo xam ni ñaaw na ko parce que pour man loolu mooy làmb quoi. maanaam am na neexal am na yëngal xam nga. parce que ku ci nekk boo indee sa ndaanaan. tey sañ ga koo yóbbu fu sori quoi. loolooy sa avantage. loolooy avantage ki ngay àndal. mais daal ma koy nuyoo au passage Marley. di ko wax ne tamit moom it courage. ba ci victoire la jógee. victoire bu rëy. donc bu ñëwee soq niil. pour man loolu victoire la ci moom. ku ci melni soxu tay tey mom moom masinil sant la. parce que lim daj ci lamb ji gëj nako ko daj ci lamb wala musuma gis mu daj ko ci lamb parce que dafa joge fo xamanteni may leral tout rek. fu sori dafa joge lamb am Pikine yëpp jog digantem ak Franc digantem ak Franc Pikine yëpp jox loxo. mais ñaare ndamay dugg ben moy genn yalla Franc la andal ñuko ci féliciter au passage. mu jóge ci loolu moom mu xam fan la Pikine waaye tegoon làmb jooju mu am lu ko metti lool. yàlla def mu amaat combat donc combat bi waru ko caaxaane donc làmb la boo xamante ni bañu ñu ci dara waaye tamit duñ joxe lépp parce que tey mën nañoo am lépp ba mu des defet defet moom c'est hors question quoi waaw. keroog bu nga dugg see si stade bi gis ki nga xamante ne mooy Marley. Mhm. sa xel ci lan la dem. waaw wax dëgg yàlla nag aw ma woon benn pression ci diggante boobu par rapport ak sax ak Marley ak euh, Franc. loo am pression. waaw parce que man gisuma ni Marley mun na def loo xam ne mun na daaneel Sokh. jinne la de. waaw mbër la déggoo li ma la wax wax naa la ko sànq ne mbër bu respecté la te ku mën li def la te ku daan ne ko ku daan ne ko de. kon yow woon benn doute parce que man gisuma woon Marley lan la mën a def ba jaar fenn Sokh daan parce que dañoo pare woon ci tour le plan ba ci moom mi nga xam moom mooy

di ci parce que giir quoi ku amul fit doo fa taxaw bu arbi sifflé wala bu ñuy waaj a sifflé loolu moom naa la ko wax moom la moom ba ci ñun ñi nga xam ne dañuy dend ak moom sax buñ ci waxuma la mais ñun sax dañuy tiit parce que làmb lu ne lu ne ngi ci affaire de jinne la yaa ngi dégg mais man moom laa gis sel mbër boo xam Mon, tey moom mi ma xam day dugg ci ay da tranquillement et calmement même boo ñëwee sax di indi ay galaaj ak ay moom day taxaw serein quoi du xëccoog yow dina la bu ma def li dina la bis nangam. arbitre bi sifflé si diggante Marley ak sook waaw Sokh taxaw di ko déglu parce que Marley dañ ne ko Marley moo aay ci luur c'est tout à fait normal. ndax dañ daan na fi ay luur yoo xam te ne peut être wuñ ko woon. Euh, ñu taxaw nañ déglu ko. Marley ñëwut ñu taxaw déglu ko Marley ñëwut Sokh dox ci kawam Marley li mu indi woon jour làmb jooju man ba ma liiree premier round bi. mooy dafa taw taxaw lu Sokh def mu bu soq defee erreur mu daan ko. même soq tamit lu maaree def mu dindi. waaw parce que boo xoolee am na loo xam ne ni sax dem na ci biir laam bañ demee deuxième round yaa ngi gis déggoo woo na soq. ba mu ñëw. mu ne ko wàcceel ci suuf tàllal say loxo. raam wut si ko. du taxaw bañ demee arbitre bi sifflé soq dafa wàcc ba ci suuf tàllal ko ay loxom raam wut si ko ñu sànnante gauche droite. maara taxawaat soq doxaat mu arrière soq dooraat ko mu daw jël tànk goosu soq. tànk rek lay bëree. mais sook foofu noonu. du maar la jëlee tànk. <laughs> maar la jëlee tànk bi kooku tànkam boobu wax dëgg yàlla mosuma seetaan ko ko ci daan ba ci entraînement. loolu mu mën la. waaw loolu moom yaakaar naa ne wet googu sax maar doon na xam parce que maar la buy song day jëf sa tànk góos. nga yaakaar ne ci góos bi la mu bàyyi takk la. Mhm. moom noonu lay bëree. mais côté boobu yëpp Marley dafa mel ni dañ koo conseillé ne ko kii bu côté boobu yëpp bu fa jaar. ndax ba ko sexee man pour man war na mën a dëj wala mu def comme ni muy def daw tàkk boo xëcc daw wër la. est-ce que soq diisul boobu. c'est-à-dire du question wu di sax mais cest à nit ku nekk ak mëninam. loolu foo fooram la moom. mais mais mais poids bi gars yi wax rek. poids bi sonalu ko. ko parce que soq boo xoolee ba mu demee Gambie. préparation non sonalul Marley. poids bu bu bu soq waaw mais xam dara mais pour dire laa ci mën a bëreewu sox maanaam côté boobu pour mbër jaar ko fa daan ko fa dana jafe xanaa mu bañ a nekk sox soq daal lu mu bëree keroog noonu la waroon ni mu bëree noonu la war a bëree teg na làmb ji ci yoon te def na sax erreur loo xamante ni sax ni ñu ñoo ko wax parce que bañ mi daan nee nañ ko attaqué kii nga song ko nga dóor ko mais koo koo attaqué song ko dóor ko xeex ak moom mu ni coppet sa tànk ah non nañ wax leneen waaye loolu ñu bëri loolu lañ wax tamit ñu ne soq tamit dafa waroon euh, imposer bu bu imposé woon mën na am dara. ñi impo ñi ngi wax loolu yëpp bu soq daanu woon même chose la ñuy wax ñi wax loolu yëpp. bu soq daanu woon loolu la ñuy wax. waaw ñi mere soq waxuma leen ñëpp de mais dama ne ñi mere sook defe du soq lañ doon seet si. lay wax ni barki seexul xadim parce que sa mbër bëre ba mi-temps waat néewuñu maanaam da koo dóor ñëwuñu maanaam da koo gëdd mu arrière. wane jàmbaar wane jàmbaar bëre ba lamb ji jeex. nga taxaw di saga, wala nga def ay vidéo di saga, koku yow victoire am yow la woon yow koku leneen nga doon gis amoko nga profito jaar fofu kon léeg mbeur ay ay supporter am dinañ ñëw après mu bëree ñu critiquer. waaw lool mu nta ñak boy ñaa avant moo bëleeg Balla Gaye deg na lu ne Pikine te Pikine way yi koy wax. mais bam daane bam daane Balla Gaye hmm. ñëpp nangu and ci ginnaawam ak tafatin ak tafatin lu deg na ci lu ne deug la pour lan muy daw da wara taxaw deugal bopam mais li ne ci mom mom moo koy sentir deug la yow mi tok sa turbine di match sa crème soñ su ba nice sol sa simis lal say verre nank toog tribune di match crème te naan sa way da wara a songu bés bu nek ak la fay xew mais bés bu nek ak la fay xew te làmb di nga indi li fekk fa lele mais dang koy gérer Boy Niang a gérer son combat contre tafatine il a géré son combat contre la de Guiers 2 te pourtant dañ koo xalab mais bam mu daanee Sénégal yépp taxaw ma la fi gën Sénégal yépp taxaw né Boy Niang fi da ko bëre mais lak lamb non la waaw mais ñu dégg Sokh après bu mu bëree ci diggante ma ki nga xamante mooy Marley mu déclaré ne day bàyyi bëri lu waral loolu ak lan moo tax mu ne day bàyyi bëri. waaw loolu nag bon affaire bu la boo xamante ni nit ki daa am moment yu muy toll. man pour man bu buy wax da koy bàyyi mu génne li ci dënnam. Mm-hmm. parce que sooku yëluful boppam ah. parce que ñun ñii ay responsable lañ ay kilif lañ. Mm-hmm. am kër bàyyi njaboot. Mm-hmm. mom di and ak mom diko dawal guddeeg bëccëg suba ak ngon pour mu am réussite donc buy bàyyi du mom moy jël décision boobam taxaw ci télé bari ba pare ne moom mooy bàyyi. moomul boppam momul bopam c'est vrai que nak bon amna luko nakari te yoy yep après dañ ci tok waxtaan. te man pour man gisuma ma may man gisuma lu len lu jar mu ni day bàyyi xeyna na xolam tàng na. am na lu ko lu muy dund te waxuko kenn. mais est-ce que taxawaay bu ci wa pigine ah wara taxaw comme. Euh, euh, euh, diggante mag ki nga xamante ne mooy Franc mhm. mobilisation bu ñu gis mhm. mais gis ñu ko si bi combat bi passé est ce que newul waa Pikine taxawaay bi dafa des moo tax waaw parce que boo xoolee combat booy Niang la de Guiers ni état bi meloon mhm. combat ak booy Tine Boy noonu mais xoolal komba mook Balla Gaye c'est comme ça gars yi kuy daan la àndal booy daan dañuy ànd ak lamb ji di ñëw ku yéex ku lamb ji di ñëw bu booy ñaa ku yéex doo dugg ci état bi kon ci diggante mag Franc lu daanu moo tax. lim daanu moo tax te am na ñoo xamante ni ñu naan seetaan si da dañoo seet si. dëgg la maanaam li ñuy wax gëmuñu ko. ku jógee combat Franc àdduna yëpp di la seetaan Pikine gi yëpp la seetaan nekk sa ginnaaw yàlla def nga am ci défaite nga ñëw contre euh, Marley non sa lamb da nga koy gere comme il le faut mais pas daanu ñun dañ koy pour pourtant moom soq sax boo tuddee ma Sène tudd Boy Niang ak Ama Baldé mhm. mu nga loolu moo ko liggéey. loolu moo ko liggéey ànd ceeg stafam. gis nga fi may waxee ni ñett ñee taxaw. ñoo ma gën a jege soox soox lañ jóge. yeneen gi ñetti ñee. ñoo ma gën a jege soox. laa moom ak Franc kii yor saag moo ko yóbbu ci otoom. kii mooy escapo. Moussa Niass a ngi nii. ñëpp ñii liñ liñ am ci soox man aw ma ko dèjà. mais peut être que question de visibilité. ak man ni may doxee ñi ma xam. mais tey bu dee sook dee soox bu dee quatre vingt pour cent quinze pour cent yaa ngi ne le. Hmm. moom soox

combat bi combat bi mais li tax mu jox ko Ada Fass benn na moom moo xam. mais combat bii ni mu bëreeg euh, Ada Fass moo ko soxla woon. mais nag mbër yi dañuy choisir ay adversaire nag. loolu nag da am loolu fa fa nga bàyyi mbër yi dañuy choisir ay adversaire du dañ lay ñëw rek ne la yow tey mën nga bëgg adversaire tey ko si mel ne tey Ama Baldé Siteu demoon nañ ba déggaay ne Ama Baldé day jël combat bi mais waa këram ñoo ko tànc ne ko bu ñu fonto ñun dañoo liggéey ba yegg si fi kii boo waree bëreeg moom di nga bëreeg moom mais loolu kese la bala maa tàggoo ñëwee hmm. nga xam te ne tey fu fanaan ñoom ñaar ñooy fanaan ñooy dem Gambie ñooy dem Casamance ñooy jë bokk seen appartement préparation komba ñee li ñu am ci soq xaaj bi aw ma ko man bu ma sañoon ñu ñëw toog wax ci quelques mots rek aca es ñoo ngi lay ziar maa leen jaar di leen delloo di jox seen wàccuwaay hmm. waaw di nuyu euh, waa lit motivation yëpp waaw mooy masa coono. waaw. yéen a ngi ñu ngi dallu waa ñu ngi dallu bu baax. Mm-hmm. ginnaaw bu ngeen bëree ba pare ñu dégg yenn déclaration yi ci côté Sokh mu ne day bàyyi bëree. non xam nga loolu tamit ku ko dégg war nga xam ne Sokh euh, yaram bee tàngoon rek. Mm-hmm. boo ko déggee da ngay xam ne kii ñun boog ñun ñi ko jege dañoo xam ne kii daf ñu bëggoon andil victoire trop moo tax mu waxee noonu quoi mais soog xale bu ndaw la te yàmm làmb daf koy yaakaar waaw te ñun tey jii nii ñun moom buy wax loolu tamit yaram bi moo tàng quoi xam nga man miinu ma wax si ay micro mais dama la bëgg wax ni euh, soq moom li nga dese moo ëpp si lu mu defagum te soq tegalewu fi ay ay defet waaw soq tegalewu ay defet soq benn si defet la jege ñëw match nil ak euh, Marley te kii moom mu match nilal du como ci làmb champion la marle la marle marle bu géej la soq tenir mm-hmm. ah mm-hmm. ndam demul ba déggee ñu ne match nul ma ndam demul ndam dikkul mm-hmm. xëy na tey jii ni dafa xër-xër bu ëpp moo tax mu def déclaration boobu mais ci ay minutes ñun dalal nañ ko biñ ñibbisee gifal ko waaw ñi nga xam ne ñun ñoo ko gunge woon ànd nañ moom ba tekkil ko ngembam giifal ko dalal ko juum na tamit warul woon wax loolu parce que ñi ko bëgg moo bari man mii rek lu ma recevoir ay message ay appel mhm. ku ku ku la woo mhm. wala ku la envoyé message loolu lay wax sa waay lan moo tax muy wax loolu sa waay lan moo tax mu mu leen def leen daan sa waay yaram bi mhm. la muy génn seen kër ndam la génnaale ku xam sooku xam nu mu préparé combat bi combat bi nii bokk na si combat yi gën a mu préparé ko yaa fuus quoi. non non non non non non ñun déggoo lu ma la ay xale lañ mais dofuñu ñun kenn mënuñu nax. bu làmb na amee ba pase da ngay dégg façon égo bu nekk fii nii mais Pikine lañ dëkk quoi moo tax Pikine lañ dëkk Pikine moo mel noonu pikin ñoom euh, comme ni ñu koy waxee rek ñëw bëgg victoire bëgg victoire ba nga xamante ne ni ñoom buñ gisee dara duñ la baal mais Sokh tey jii nii man man boog dama part personnel ah man Sokh oma dara lu ma koy ni mu bëree noonu par la force noonu la war a bëree su ko bëreewul noon noon bu génnee dina déglu leneen lu gën a pire. dama waroon xaar ak yooyu. la moo tax muy ñëw di asaaloo combat ak soq ci lu mu jógee soq dafa jógee si defet bu metti la jógee defet boo xamante ne nii ñëpp la metti ñi nga xamante ni dëkkuñu Pikine sax dañ ko yéene woon contre Franc bi ndam bi dañ ko ko yéene woon mu mu dem contre Franc nga gis yàlla def lu mu def yàlla xañ ko tey bu ñëwee du bëree lu muy bëree mu mu kii ko man da man tey jii man sox bu ko gisee sax mu dem kii man blâmé ma ko suñu waxee ko mais dama dama mel dama mel ni soq dafa dafa jógee si defet dafa mel ni dafa jógee si defet dem toog di wax loolu boo jógee si defet ngay dem di toog naan ay bàyyi naa làmb ay affaire yooyu noonu ngi bëree tenir booy bi en échec ki nga xamante ne nii ku mu ku mu doon bëreel moo doon attaqué daw mën a bëreel la daan la avec manière mais soq moo koy ut si làmb ji yëpp sook moo koy ut si muy arrière wala gaay ñom ban télé lañ doon sétané lamb wala fal ñom ñaan ñep bëri nañ gatché mo mais lan lañ la la wa pikine mëna xaar ci sox wa pikine lu ñu lu mëna xaar ci sox moy mm-hmm. ñu def ko comme ko tay ni ku su nekk rek bu nekkon sa frère la moy mm-hmm. encourager ko motiver ko mm-hmm. dalal ko mais nekul pa yow da ngay ni dem dem beure dem match nul nga ñew ñu lay wax non non la may match nul match nul mom daan mom ñuko ko fi def mom njëkk ko fi def te du ko mujjee match nul ak lamb ñoyam match nul ak lamb ñoyam sokku limu wara def yëpp def nako entraîner na andina doole ah respecté na combat bi ah léegi lan mo lan mo ci des. lan mo ci des yalla mo ñew day wax ne day match nul mu match nul. solo ñolay lay wa ba pare di gëreum tamit euh, wa Pikine. di gëreum wa Pikine gunge nañ ko comme niñ ko doon gungé di gërëm tamit ñi ko jàppale ci combat bi yëpp ñi ko jàppale ci combat bi yëpp ak ñi ko doon ñaanal di gërëm bu baax waaw di wax te jii ni soq bàyyiwul làmb xalaatul bàyyi làmb soq làmb la am làmb moo koy euh, moo koy moo koy xamu nu ñu koy waxee sax làmb mooy gañ payam quoi waaw pour ñu dalal seen xel soq bàyyiwul làmb yaramam moo tàngoon rek waaw. acca am na solo nee naa leen tey grand mbay lañ seet si woon fi nga xamante ne mooy Pikine dégg ngeen lu mu wax am na solo si diggante ma ki nga xamante ne mooy sook gars yi Sokh bàyyi lu bëre de comme gars yi ni ñu ko waxee rek yaramam moo tàngoon waaw loolu moom mënul ñàkk Sokh di la wax rek nga champion nga def nga lu ne ci làmb di wax nga gën a jàpp gën a góorgóorlu rek waaw lamb moo ngi ca kanam looy looy tàggatoo mbokk internet. waaw di sant waa Pikine yëpp nag di gërëm waa Pikine yëpp di leen wax ni nañ gën a jàpp euh, di nuyu mafia Sokh bi yëpp ak waa Igri xam sa cosaan. Euh, di féliciter bépp mbaru pikin di encourager tamit benn bépp mbaru Pikine waaw di nuyu sox bu baax parce que fu ne sama xol dafa fees quoi mais nag yàlla na yàlla yokk sutura yàlla na yàlla def jàmm mhm. yàlla na yàlla defal ñëpp jàmm ci barke Sëñ Baaba aja am na solo seen émission xaar leen ko ci beneen numéro ak beneen daanaan mhm. jaa jëf